ñor laay sama sëriñ la moom moom moo may waaw waaw <laughs> laay Alassane euh, dem ba tey gis nañ la si festival bi ngay def sa yu baax di def sañ sañse di def lépp léegi ma la doon laaj festival bi nan nga ko dundee. nan laa ko dundee xanaa kontaan xanaa bég def dérangement ak déplacé au moins 70 kilomètres de Dakar à Thiès rek ñëw fekk si samay naataangoo samay am di jàmm samay xarit samay collègues si affaire art bi. seen festival bi ñuy wax Fesrail am plaisir aussi ak contentement participer tout le temps si seen festival suñu xarit lañu suñuy suñuy lépp lañu donc tey bu ma présenté wu fii si à Thiès si festival bi nekk na loo xam ne lu ma neex la te mosuma ko raté depuis que ñoom ñu ngi def seen première festi euh, édition ba tey mhm. waaw. waaye kontaan nañ si ñëw bi de mais dinaa la xamal leen guddi xanaa fee moom da nga fay toj de du yomb ah. waaw man moom xam nga Thiès moom képp ku leen di seet si da nga war a fagaru. da war a jël say devant parce que na nga leen di fekk si parce que sur le plan théâtral sur le plan sañse sur le plan mënal gan sur le plan accueillir nit ñoom ñëpp vraiment foo leen foo leen fëgg rek foo baatare rek ñoom ñu kupp kon ko ku leen di ñëw di leen euh, di leen si war nga def ba mu baax. comment vous allez ñi moom samay partenaire nañu yàgg nañoo liggéey xam naa leen bu baax. dëgg la kon à rek euh, yàlla yàlla gën a loxal euh, barkeel caméra bi. li si li si si kaw si kanam si lu baax. merci Laye Makhtar merci beaucoup. yéen ñaan ñëpp la ñu soxla moo tax ñoo fekk si leen fii ma ne ñaan ñëpp la ñu soxla moo tax ñu fekk si leen fii ndax fekk gis nañ fi kii Rouba Rouba Seye sama artiste nga xam ne moom moom mooy toj euh, mbetteel waa di fa jouer rôle bu am solo di def lu baax léegi dama la doon laaj nan nga dundee festival bi Rouba parce que gis nañ ne démb ba tey ngay defar ba mu baax nag bàyyi woo dara. waa sant yàlla rek ak am mbégte bu baax a baax. parce que festival yi moom man dama naan toujours ak lu mu gën a yokku rek gën a neex parce que artiste bi aussi amul lu dul lii retrouvaille la euh, et puis dina tax ñu découvrir fi yu bëree bari c'est vrai fo bi ak ree bi retrouver woo ñu ñëpp loolu neex na mais li gën a am solo ba gën a am solo mooy euh, débat yi nga xam ne ñu ngi koy organiser fii muy ay panel genre xam nga et puis ñu siy jëlee ay xam-xam bu baax a baax surtout ñun ñi nga xam ne macha allah dañ nekk ci tànku jàng di jàng aussi donc euh, loolu dinañu arranger dinañ ci jëlee xam-xam et puis gën a dina gën a tax ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk li ma mën a wax daal mooy festival bi daal franchement njariñ kase lañ ci lañ ci jëlee waaw. moo tax nag waa Leuz bi ñëw seet si leen te xam naa ne guddi du yomb. guddi fu mu yombee ay ñun rek ah oh laay lay la laa da ngay fo. <laughs> guddi du yomb waaye dama gis soppe sa sa sa sa wet mu toog. borom festival bu neex bi nga xamante ne moom day wàcc Tëngéej ba mu wàcc weekend bii di ñëw moom ñun ñëpp Tëngéej lañ jëm ku na lool waa Keppaaru Maam léegi soppe dama doon laaj festival bi nan nga ko dundee. Euh, avant festival bi Rouba ñun dañuy grève waa Leuz TV. Ah. dañu bëgg Leuz ndari baaba mu àggale euh, waxal sa loolu wax ko Leuz. mais euh, damay jàkkaarloog mais Leuz li ñu bëgg mooy ndari baaba nga continuer parce que Ndari Baba dafa nekk actualité benn ñaareel ba mooy li ci nekk mu am solo te xale yi wax ci jàng ñuy ay jeunes politiciens dafa bari Leuz xoolal yow ay waxal yow yaa ngi may gis Ndari Baba laa bëgg nga woñu tournage voilà. Leuz mooy àggale Ndari Baba ak jàmm ndax Ndari Baba ñëpp ko bëgg. waaw mais maa ngi lay nuyu Ndumbé di nuyu aussi waa Leuz TV di leen ziar euh, di am mbégte trop artiste am na dul mbokk artiste am même mbër yi sax dañuy wax naan ñoom ñooy mayante xaalis kon ñun artistes yi ñun ñooy mayante doole te mayante doole bi du sax yëkkati xaalis di ko jox sa morom mais mu xewle nga bàyyi sa lépp ñëw teewal ko toogal ko jouer ko ba mu kontaan même bu diisoon après day oyof si moom parce que je me rends compte que ni fii waa si yëpp gis nga mbégte bi ñu àndal ak bonheur bi c'est parce que ñoom fu ñu tourné rek gis nañ kenn koo xamante ni dafa bokk si ñoom gis nañ kenn koo xamante ni dafa sës si ñoom gis nañ kenn koo xamante ni ñoom li ñuy jooy moom la kay di jooy gis nañ kenn koo xamante ni ñoom leen di bégal moom moo leen di bégal te loolu dafay apaiser nit je pense que loolu moo am solo moo tax ñu teew te bu fekkee ñun aussi bu ñu xewlee ñoom ñu bàyyi lépp li ñuy def ñun on peut que se réjouir ñëw jàppale leen ba bagage yi fu mu yem neex voilà. yow de boo xewlee ñëpp war a teew léegi yow keppaaru maam yaa ngi koy waaj. waa keppaaru maam ñu ngi ci bu baax a baax sax gisoo yow sa ñëw kañ la pare. Euh, man sama ñëw pare na depuis mois passé. man pare la naa bu ah, tam xam nga keppaaru maam dafa nekk mbir moo xam ne du mbiru soppi. déedéet voilà mbiru artistes la. et mhm. dugal loxo dugal tànk. mbiru artistes la. Mhm. ñaw yi pare na ça fait 2 mois de ça là. na seen musóor rek waaw action musóor yi daal na kawe na jol joli na tey baas yi génn. waaw lu waay mën a indi daal na indi si yu baax maquillage fard rouge yu baax nga xam ne du gaaw a wàcc. xam nga borom Kepaaroumaa moom day def ba mu baax ay bolog yu baax lay def benn <laughs> bu kenn yërëm kenn bu kenn yërëm li muy sol bu kenn yërëm ni muy xeeñ bu ken yërëm oto bi muy tugg bu kenn yërëm dara lépp lu ci waay mën ni ko Rouba waxee lay wax keppaaru maam ñun moomatuñ ko comprendre nga keppaaru maam léegi keppaaru ñëpp la te macha allah bu organisé bu amee. Euh, d'habitude nit ñi dañ koy wax naan Sopé comment se fait-il que macha allah nit ñëpp daje fi mais du sax ñun ñooy dem tout le temps di uyu ji te loolu nag dañ koo bëgg suñu naw lay xewle ñu dem ci moom mais ñoom dañ ko jël def ko seen mbiri bopp te édition bi dina wane encore une fois que keppaaru maam màgg na donc li ci de li ci kanam raw lu bët wait and see koy waxee noo ba booba. waaw <laughs> ah, booba moom ñu bëri bëri di comprendre. waa jeex du yomb baax na soppe kon. man na yow xam nga man keppaarumaan damay ñëw trois jours avant. kon jeex na. waaw salaamaaleykum tey dama fi gis borom kawlax borom festival Kaolack baa ngi nii nga xamante ne bu ñu demee Kaolack ñun ñëpp lay taral bañ tedd te dara du yëngu. waa naka nga dundee festival bi nag. waaw ñu ngi lay maa ngi nuyu ñiy seetaan Leuz TV yëpp euh, di kontaan bu baax ci festivalu Thiès bi Fest Dry bi yaakaar naa tey mooy septième édition bi te yaakaar naa sept ans yëpp ñëw naa ci. parce que Thiès li ko boolee Kaolack dafa bari euh, première fois bi may njëkk a organiser benn anniversaire ak Kaolack waa cees yi bokkoon nañ ci délégation yi nga xam ne ñoo ñëwoon booba léegi dañ ko bañoon ba defoon dañoo defoon jumelage entre Kaolack ak Thiès ngir cofeel bi nekkoon sunu diggante moo tax activité bi bu amee faaw ñu teew ci te it euh, festival la bu bokk na ci festival yi ma gën a neex parce que organisation bi dafay jaar ci yoon dañ koy teg ci yoon dafay Euh, dafay dafa dañ ciy jëlee doole lañ koy jëlee ak xol kenn ku nekk da gis ne day sonn pour affaire bi baax di gërëm bu baax Jules Dramé président bi moog ñi nga xam ne yëpp ñu ngi àndak ak moom di liggéey di kontaan ci festival bu baax di ñaan yàlla yàlla may ko tànki kanam mu bañ ko may ay tànki ginnaaw voilà waaw kontaan nañ trop xam naa ne guddi moom yomb de. waaw du mën a yomb di mën a yomb pare di tereful nag di jox rendez-vous ñëpp tamit Kaolack parce que vingt vingt 2021 tamit dañ fa am beneen festival. bu tudd festival des enfants festival international de la pêche pour les enfants yàlla dogal mu tombeek sama bésu xarit bi waaye loolu yëpp yokkute rek parce que bu ñu demee ba date yi di saturé mooy wane ne kon gars yi ñu ngi liggéey ñu ngi jéem a fexe def promotion artistes yi te festival yi dañuy bëgg muy génne ay révélation di génne ay artistes talent loolu moo nekk bii bi moo tax it yàlla yàlla jàppale keppaaru maam am ndam fiab am ndam ñun ñëpp ñu bokk ndam li muy ndami artistes yëpp. ñun waa artistes yi bu ñu amee ndam ñëpp am ndam. loolu rek lañ ci bëgg. waaw kon baax na dañuy ñëw Kaolack dem dem Tëngéej ñaar yëpp la ñuy. ñu ngi leen di xaar incha allah. damay yokk dara bay di kii ku baax la parce que suñu ñaari festival yi dañoo dañoo bokk ay jours le 19 le 20 le 21 pour bëgg lu neex xam ne ñun ñëpp dañ am moom festival ba mu dul dara dama fa daan dem ren mu tombe mais dafa bàyyi benn bisam pour ni artistes yi mu programmé moom yëpp ci festival am ñu ñëw tënge joué ba pare samedi ñu soog a ñëw ci moom donc loolu ku baax moo koy def donc dama bëggoon rek témoigner que entre ñun artistes yi ñun directeur du festival yi am na jàppalante bu nice boo xamante ni yàlla na jëm kanam te seytaane bañ ci dugg jërëjëf sama xarit ko sama naataango koo xamante ne ñun ñaa ñoo bokk benn tur bi ñu liggéeyee muy Isaaxa Ndiaye Isaaxa nag boobu ba tey maa ngi la gis ngay jaaba jale di def sa yu baax noo dundee festival bi waaw numbe maa ngi nuyu ñëpp boo gisee ñuy jaaba jale dara waralu ko ñun ñoo xewle te olof Ndiaye dafa ne ko aaye wal sa moome kon ñoo aaye te dañoo war a wane suñu bopp looloo tax benn instant ni ñuy jaaba jale di def lu ñu neex waaw festival bi nag ñu ko dundee neen la dalal suñuy gan dëkk ak ñoom dëkkook ñoom ba keroog ñuy ñibbi waaw ñu def ak ñoom ambiance waaw kontaan nañ kon bu fee du yomb de. non Thiès ren tey mënut a yomb parce que instant bii nii dañoo jël lal yëpp ñu maye na tey tey tey la tey. dégg naa ma ñu ñëpp ñu ngi si gulu a ngi taxaw kon baax na kon en tout à l' heure. nettali bi te biñ buñ ko nettalee rek barki Sëñ Bamba day neex Béy nag lenn laa koy wax ñetti at maa ngi koy yëgal sama programme du ñëw ren le 8 juillet la Béy di sama programme le 8 juillet la yow yow laa def parrain bi yow yaay sama parrain Béy waaw wasalaam